asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yow mbokki jullit bi may seetaan te di ma déglu maa ngi la indaaleel tey ndénkaane bu am solo jóge ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam saxaaba bu ñuy wax abdullah ibnu mas'ud radiallahu anhu dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonent yàlla bi ban jëf moo gënal yàlla subhaanahu wa taala ci jëf yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bari na laaj yu ko saxaaba yi doon laaj ci laaj yu mel noonu waaye saxaaba bu ci nekk boroom xam-xam yi nee nañ boo ñëwee yenent bi daf lay tontu fa sa niveau toll Abdullah ibn Mas'ud bi mu ñëwee laaj yenent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj boobu yenent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne ko assalaatu ala waqtiha jëf bi gënal yàlla ci jëf yi day mooy nga julli ci waxtu wi allahu akbar mbokk jullit ndax yaa ngi julli ci waxtu wi mbokkum jullit ndax bokkoo ci ñi nga xamante ni dañuy topp seen liggéey bay sànk waxtu julli ndax bokkoo ci ñi nga xamante ni dañuy topp seen bànneexu bakkan bay sànk waxtu julli ndax bokkoo ci ñi nga xamante ni dañuy sàggane julli ba yàlla di leen tëkku ci alquran ne fa waylun lil musallin alladina hum an salaatihim saahuun baa bokkoo ci ñooñu yow mbokkum jullit jéemal a bokk ci ñi nga xamante ni dañuy fexe di góor góor lu bay jooxe julli gi ci waxtu ndax inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta ñaareel ba ibnu masud ak ban yow yenent yàlla bi yenent bi alayhi baaxee say ñaari way jur allahu bokkum jullit ni baa bokkoo ci ñuy dëngee seen ñaari way jur baa bokkoo ci ñuy wax seeni wayjur cam paa bi dafa soof mère bi dafa soof baa bokkoo ci ñi nga xamante ni bu ñuy wax ak seeni wayjur dañ leen di gëdd di leen yuur te yàlla neewoon na wala tanharhuma bu leen gëdd waqul lahuma qawlan karima yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaareel boobu la ko wax ginnaaw julli ne ko mooy jëf bi gënal yàlla mooy nga góorgóorlu ci say ñaari wayjur abdullah ibnu masud ne ko ak ban yow yonent yàlla bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ak jihaad ci yoon yàlla allahu akbar mbokk jullit ñi xool leen ñett yi yonent bi tontu ibnu masud ba ca gën a féete kaw moom mooy julli ba mu ca jógee wàcc ci say ñaari wayjur te loolu daa iman moom lañuy gis ci alquran yàlla saa yu diglee ci alquran ne nañ ko jaamu lam cay teg mooy wa wassayna al insaana bi waalidayhi ixsaanan waabudu llaha jaamu leen yàlla waa tushriku bi shay'an te bu leen ko bokkaale waaye wa bil waalidayni ixsaanan la cay teg ngeen rafetal jëmee ci seeni wayjur loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ibnu mas'ud ñëwee laaj ko ana ban jëf moo gënal yàlla ci jëf yi def na ko mooy julli ca waxtu wax allahu akbar bokk yi nañuy góorgóorlu bu baax a baax di jooxe julli yi ci waxtu yi ñaareel la bu ne ko mooy nga rafetal jëmee ci say ñaari way jur baaxe say ñaari way jur nañu bañ a mel ni gone yi tey li ñuy wax mooy njaboot ki njabootu kanaara la loolu la way jur yi di wax da ngay dañ leen di jiital topp seen kaw déedéet njaboot gi faaw nga jiitu ñu topp ci sa kaw kon nañu respecté way jur yi ñetteel ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam soog ko indi jihaad moo tax saxaaba ñëw na ci yonent bi ngir tàggu ko dem xeex ji ci yoonu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax sa ñaari wayjur ñoo ngi dund saxaaba bi ne ko waaw yonent bi ne ko demal nga tàggu say ñaari wayjur allahu akbar kon jihaad lu muy am am am am importance topp say ñaari wayjur moo ko ëpp importance kon wasiya tey baa ngi noonu di wasiya bu am solo muy dénkaane bu am solo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa